senevision.com kumpa ak honorable Matar Diop yitem yep di njitum rewmi président Makissal Amdam, am ndam ci élection législative loli tax saa yu nekk muy ay di dem ci ay gox yu fasantikoo alarba yemook fukkeelu fan ak benn ci campagne biya jot def lu toll ci cinq étape étape bu ci nekk mu di fay daje ak mbootaay yu takk yoo xam ne mbooloo mu bari ñoo nekk ci seen ginnaaw ba ca njëkk di wadan maktar yàlla moonu boole ak yow sa ndimbal mu ngi ci nun sa doole mu ngi ci nun sa kemt laayal kàttan li nga def ma gis ko laay wax waxaluma ma sàmba waxaluma ma demba yàlla tax may wax ak bi ak Serigne Touba tax may wate sudul won yow duma waté yalla dogal na dama bëgg yeen ñi penc mi amul luñ mënul moo tax ma bëgg ngeen dogal ma ñaanal ma ma jot ci lolu doon député Wadane doon député Guy Mbind. lu état bi nekkon na Tawfekh Jolof. ku ngeen andal ko lan andal kon nak lu may wax moy ngeen jappalé Matar job muy ko gore ko xam lu ma jox man dina ko bokk ak askan bi. ne guy mi bokk kon war nañ koo mën a jàppale buñ ko jàppalee buñ ko falee député dañuy mën a dimbale ci luñ bëgg loolu li ñuy may ndam moo ñu may président Macky Sall majorité sambale ak bu jour vote ba di leen indi fii ay oto ñëpp nañ vote fii may wax ak yow nii ku yëgutoon ne maa ngi politique yëgal ne maa ngi politique maa ngi jàppale Macky Sall. tey jii su ma nekkee député fii Touba war a teewal jigéen ñi war a teewal xale yi lépp lu ma mënoon dina yokk lépp lu ma war a def dinaa ko andi. ñetteelu étape nekkoon ndaamaatu foofu yi takku nañu ba dëgër ngir jox ko ndam. dañoo jub ay élection législative muy élection yoo xam ne dafa am solo. taal Matar Diop mi nekk liste nationale. dañ leen di soññ bisu yi muy la 31 ko doon defee. fi suma fi ñëwé té fekk na fi liñ fi waron def yépp soxna mi def nako fi kon bok na ngeen voté carte yi Macky Sall gagné quatrième étape guy mbind foofu it mbooloo mu takku ño and ci ginnawam Matar xamnañ lim bëgg ensemble lañ ko soxla te inshallah rabbi ñun wa guy mbind yëpp mobilisé pour and ak moom merci seen doom Macky Sall ko pour mu war a nekk assemblée nationale teewal leen fa bis boobaa nag yéen ñëpp yéen a war a jóg fal Matar Diop député ñëw taxawu leen ba seen jafe-jafe mën koo saafara. cinquième étape Ndamatou 5. Matar Diop mi ban ko déggee nag ci lu baax rek lañ ko dégg ñoo ngi ci ginnaawam jàppale ko ba mu neex su ma nekkee député nag nekk député Touba parce que booba ku xëcc jë yóbbu Ndar ñii xëcc yóbbu Ziguinchor ñii xëcc yóbbu Diourbel ma xëcc mu ñëw Touba ci état bi fu mu fi yegg rek de jot na leen a jagleel lim bu takku ci ay koppar ngir ñu mën a wéyal seenu campagne